monsieur le ministre maa ngi leen di félicité bu baax confiance bi président am ci yéen ba tax mu joxaat leen ministère yi ngeen yoroon ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen ndam bu raw bi ngeen si amoon di leen félicité mu le ministre ma lay félicité bu baax si taxawaay bi ngeen amoon ci Covid bi mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne xam nañ ne yombul mais matal ngeen ko tey ba Sénégal macha allah bu jëlee deuxième place. loolu ñëpp ko war a rafetlu yow at ñi nga àndal ci liggéey bi mais aussi di di leen gërëm di gërëm président bu baax ci taxawaay aussi bi mu am ak yërmande bu mu am ci askan bi ci Covid bi mu nekk at bu metti laal foog naa àdduna bi yëpp mais tey gis nañ aussi taxawaay bi président am ba secteur yi nga xam ne daf leen impacté tey tax jàppale bi mu leen jàppale ñi gi 69 milliards yi nga xamante ni def na ko ci aide alimentaire bi mu nekk lu am solo aussi si askan bi loolu ñu koy rafetlu mais ni ngeen jàppale transport jàppale tourisme mais jàppale secteur yépp di leen gërëm bu baax a baax monsieur le ministre mënuñ munuñ mënuñ ñàkk sant aussi douane parce que malgré Covid bi mais gis nañ ne ñu ngi continuer aussi di def ay résultats yu baax monsieur ministre man nag dinaa voter sa budget bi parce que dama jóge ci département bu Koungheul président defal ñu fekk fekkoon ñu fu metti mais indil ñu ay programme yu am solo kon dineen ko voté pour mu mun a yeggali programme yooyu nga xam ne commencé na ko dineen ko voté monsieur le ministre parce que dama nekk baykat di bay président fekkoon fi mbappat bu metti tey kilo gerte dañ ko daan wanteex ci luuma yi mu ñëw indi kilo gerte 210 ñu ne déeta waaye mu ne da koy def cent cinquante kon ñun dañoo gis suñ bopp ci président moo tax dineen voté budget bi monsieur le ministre ñu ñu ñu gis ne tey am na ñoo xamante ni foog naa fàtte xajul ci diggante bi monsieur le ministre président mënoon na louer jet privé di def comme ñi fi nekkoon nuñ ko doon defee mais gis nañ fi tey monument de la renaissance plus de quinze milliards yoo xamante ni tey dañ ko pasar pasaree mais tey plan tàkkal ñaata milliards lañ ci def 485 milliards animu mais président tey dafa déclare Air Sénégal muy dox ci jaww ji loolu ñu soxla woon ko trop kon ñun dinañ leen jàppale te it nag nit ñi bu ñu nekkee di wax mais tey Fesman bi nga xam ne quarante 48 milliards la woon loolu lan la jural sénégalais yi mais président dafa indi ay programme yi am solo indi PIDC indi indi PSE indi bourse de sécurité familiale ñun loolu lañ doon xaar ci président tey ma département bi ma dëkk courant am na dëkk yoo xam ne mosuñu woon rêvé ne dañuy am courant mais tey comme ni ma koy waxee am na gétt yoo xam ne am na courant kon ñun dañ koy gunge ci programme boobu mu mun a yeggali programme yooyu nga xam ne commencé na ko ci Sénégal ñun daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm di dinañ leen accompagner mais lu leen finir wax aussi ñun dinañ ko tontu mais dañ koy tontu ak argument du ñu xuloo du ñu xeex parce que xam nañ lu ñu indi assemblée donte ay ndaw lañ mais xam nañ li ñuy indi assemblée c'est vrai xale man tukkikat laa mais tey am na am na yoo xamante ni man du leen du leen ko digal en tant que jeune parlementaire buy wax ak ñoom parce que tey